Yoff yewo ci nakar eh, gannaaw ñett fan eh, bi ñuy wër ki nga xamne rek eh, mom moy imam imam Tcherno Tidiane tal n'ekon imam euh, bu grand mosquée bu Salam de fële euh, Grand Yoff ni ki tey si suba euh, lañ bassin bu zone de captage fofu dal lañ ko di gis si la Botamnak ay rek yëgal Tu nouvelle bu triste Bobu lolu la ñu ñi nga Grand Yoff gis nañ nag li image yu triste yi nga xam ne rek moom lañ ko gis ndaxte tiis at naqar rek la nemmeeku ci xar kanamu ku nekk. waaw nañ ko yëgee comme ni ko yëgee bon dañoo yeew suba euh, doon def ay recherche comme d'habitude bon man dama yeew rebattre côté Scat Urbam HLM euh, Grand Yoff euh, bi may ñëwee nag comme que le vendredi j'ai d'habitude préparer heure de prière pour sunu mosquée bi. bu ma ko defee ne bon comme suba aussi war naa rebattre kër kër kër Massar naa dem si benn benn ma jox ko heure de prière yi ñuy waxtaan mu tegtal ma ne am na benn paa bu nekk yëmbal aay na ci bi may woo sama frère bi pour ñu ñëw mu indi yërëm ñu dem foofu ci la ma ne naa rebattre naa ko fekk fële euh, ginnaaw surtout zone de captage bi ñu ñëwee malheureusement muy moom waaw. bon pour bon commissaire bi ñëw na ànd ak ñoom bon jël nañu corps bi yóbbu bon xam nga lu mel ni foog ñu def autopsie bon ñu ngi déglu mais tamit bon lu ñu leer leer yàgg na ci ndox mi parce que nit bu demee ba tëmb euh, lu bon bon war na fa def trois jours te mu ñu réer lundi le 30 moo jiitee ci jumaa ji di euh, takkusaan bi mu jógee foofu ne day seeti frère bi Mama Tall tailleur la marché Grand Yoff mu woo ko maa maa ngi ñëw mama toog lu yàgg jotu ko ñëwul woo ko woo waa kër ñu ne ko grand bi génn na mu ngi ñëw ci yow maman ba vingt trois h moom la mujjee waxal kii bi fay euh, bu ñu defee géolocalisation bi le lendemain mu jox ñu benn endroit bien précis ñu dem foofu bon ñu ñu lakk ay xam ma ay daadaa daal mais tey lu ñu gis pourtant ci même endroit bi lañu fekk koor bi. waaw. bon lu ñu ci jàngat mooy pour le moment mu ñu ci wax dara parce que boo ñun xam nañu kan mooy imam Tall que nee nañu nit boo ko bëggee xam da ngay xool nu mu nekkee moom nitu ñëpp la xale yi mala yi mag ñi boo fi ñëwee fii mooy daaram fii ay xar ñoo fi nekk koñ bi amul musulman amul chrétien amul kenn ñëpp Papa Tall lañ koy wax du tànqam lu kenn tey boo leen fa ñëwoon sànq di xam ne kii.

insécurité moom partout là du Grand Yoff waaw insécurité c'est partout fo xalat muy fo malheureusement nak ñu ngi dëkkalee Grand fo foo xam ne dëkk fa waaw ñom ñoo xam la moo mais li am fi am na feneen ak fenen ak fenen ak ak fenen lenn kay lañu war joytu euh suñu kilifa yi ñi ñak hein ah, tay recherche yi waroon na gëna a gaaw parce que ko xam imam la

témoignage moom mën a def ci moom daal lu dul imam boo xam bi c'est un imam c'est un imam c'est un imam disponible waaw woo ku ku am yitte ci nit xale bu tuuti boo ko déplacé foo ko déplacé mu mu déplacé wu muy ci biir dëkk bi muy fi foo ko soxlaa rek mu dem du gàntal kenn du gàntal kenn julli ci jàkk ji ñëw këram kaay wàcce kaamir mu jóg wàcce ji kaamir wala ngénte am ñu woo ko mu dem tuddi wala mar d'Italie lii lii ñu fi dajale tey dal ko ñu woo ko mu defar ko jébbal ko boromam waaw waaw amul beneen kilti kilti ci àddina xaritoog ñëpp ñëpp nag ñëpp nag fii séeréer yi séeréer yi bu leen gisee day kal ñoom mel ni fële kii waaw boo àndee boo boo boo àndee moom boo àndee ak moom du dem boo amul boo amul boo amul tuuti patience sax da boo gaaw a énerve sax da nga ndax ku mu rek taxaw taxaw jógu waaw waaw xeebul kenn xeebul kenn du mag doon ndaw xale yu tuuti sax yu toll nii fu ko kii ci sëriñ la ngoog sëriñ sëriñ ko woowee turam sax sëriñ sëriñ rek wax dëgg moom moo leen jàngal fi alxuraan sëriñ sëriñ rek waaw waaw fu ko nit mun a wooye ci lislaam dana la fa fekk waaw ah xëy na lii la yàlla dogal ci moom xëy na xëy na lii la yàlla dogaloon ci moom dañuy ànd rek xam metti na nag naqaroonu nag ndax bu lu nit ki lu ko naqari daf koy mun a dem faji ko mais nag metti nañu wax dëgg yàlla waaye naqaroonu de waaye metti nañu waaw ndax xëy na yàlla moo nu ko teg ndax man mi wax ak xaw ma ndax léegi nii mën na maa dee fii bu fi may wax waaw waaw lu dul di ko di ko di ko ñaanal yàlla yàlla woyofal suuf ci kaw ak mboolum jullit moom fa fek ak ñi ko fa nar a fekk yàlla bu mu gaaw waaw alal nit du ko boole kenn boo àndeek moom day joxe di joxe di joxe ba yow mi nga ànd sax da lay leb di joxe waaw vraiment c'est un imam boo xam bi de marque la waaw exemple la exemple la waaw. tiis tiis bi mu emet moom foo mu foo mu mën a yegg ci man léegi sax la waaj ndax bi ma ko wax bi may dem damaa daanu ci yoon ma yeggee policiers yi ñoo nangul ma ma yegg booba sax génnagul génnagul ñu ne boobu encadré foofu ñu ne il faut sapeur ñëpp pour génn ko ñoom ñoo ña fa ñu mu jël ma euh, taxi ak sawara benn woto maag benn rakam pour ñu ñoo indi ci kër gi ak da ak benn jigéen bu dëkk fii ñoom ñoo ma indi ci kër gi waaw mais man waaw. Euh, bu ñu imam euh, jàkka bi tabax bi. Hmm. daf ko itteel trop. waaw fu mu nekk dem na. waaw pour jàkka bi. waaw def na def na waaw euh, message boo xam diko waaw waaw dem ci. pour jàkka bi fu mu toll actuellement. waaw def ko ndax imam bi. mu doon def. yitteem yëpp def ko cay defoon waaw di ñaan yàlla mu yegg jàmm waaw ndax moom moo commencé woon état moo commencé woon ci kaw waaw boobu gis boo demee da gis fu mu yem fu mu xam am de bonne volonté mu mu laa mu mu lance fa ànd ak de dem pour ñaan fa ndimbal mais rek fépp ak fii waaw ku mën a ngir yàlla waaw musta laaj ngir boppam ngir yàlla lay wax lu waaye def sa bopp bi see di laa la doon li lim ci liggéey ko néew waaw am na ñu ko jote ñëw ba fi mu ba lool ci ko moom moo ko liggéey yàlla def kee xaalis bi jeex mu ni kak fi mu nekk nii bi muy dem ni ñu ngi woon ci di defaat ket xam naa de seen diggante dafa da ngeen jege parce que ñun ñëpp ñëw julli même jàkk. waaw eh, woon problème ak kenn. yëpp mosu ou bien ou bien eh, bi nga yëggee eh, na reer na. lan nga jëkkoon xalaat comme xel bu xel. man eh, musuma problème kenn kenn kenn kenn musuma wax am na am na ma problème kenn waaw moom moo ji moo jiite 17 heures bi ñu koy julli moom moo jiite man ma bàyyi ko fa ñibbisi moom day wasifa ñu wasifa ba yegg ci la tàggoo dégg dégg naa ñëw ne fii ci yaayam ni ko maa ngi seeti sama sama rak di nekk fii marché na ba rob ma lu war a mat à à trois mètres door ma ni ma dem fii te ñëw loolu am ci moom de loolu ma dem fii te ñëw waaw tànnoonu boobu ba tey nag dellusiwul ni ni mu dellusee mi ngi nii loon di ni mu dellusee muy nii ñii ci magam la leen rakkam la leen tàggu fa magam rakkam gisu déedéet rakkam. yeggu fa rakk bi fan bi tailleur la mi ngi ci marché bi. mais moom amu woon problème ak kenn. musuma koo yëg musuma koo yëg musuma koo yëg. waaw moom nitu nit la. musuma koo yëg. xanaa ah xëy na bokk man de musuma koo yëg wax dëgg yàlla waaw. waaw te dégguma ko fenn nit wax dëgg yàlla musuma jali so wona mo yeli dañata ko ñaami so wona mo yeli dañata dole ndaare aduna ko funti foyde ha gore jam ko heewi e dow golle bonde en dam boni ndaare duna funti fuyni ve, bueno, ya lo foyde ndaare aduna koye fulti foyde a gore jam heewi e dow golle bonde en ɗam boni ndaare duna fulti fuyni mm-hmm, tiis bett nañu lool ndax ba mu réer ak léegi tey la am ñeenti fan man maa ngi fi bañ mako ko man ak sama rak ak ñun ñëpp ñoo ngi fi jarbaatam yëpp ñu ngi fi ñuy wër gisunu ba tay li teeruñu ne de mu dugal fekk nañ ko ci ndox mi xamuñ dañ ko ray xamuñu luñ ko fa dugal dem na rek lañu am di wër dara leeruñ ci lu ko ray nak wax dëgg yàlla. réeré ci li nga xamne lañu wax muy euh, euh, lundi euh, tay ji ni est-ce que xalaatoon won ngeen. ñun musuñu ko naané ndox façon sarax bu ñu wax dinañ ko def ñuy yaakaar rek xale di daw di wër ñi naan gis nañ ko fii nañu seeti foofu ñi naan julli na ci jàkk bi nañ ko seeti foofu ba lii teere ñu moom lañ moom la ñu xam kenn noppalwul kenn lekkul ñun ñëpp ñu ngi wër ñëpp ñu ngi wër wax dëgg yàlla famille fa kii Kër Massar bopp Grand Yoff ñëpp a ñëpp ngi wër kenn nelawul xale yi bàyyi seen liggéey di wër jigéen ñi ñëw toog ci kër gi ñetti fan tay kër gi da nga yaakaar ne dëj moo fi nekk parce que responsable la moo toll noonu pël fuute yi nga xam ne dañu luwee fii ci sax seeni responsable la sama nijaay góor gu baax la góor guy jokk mbokk lu mu am mbokk na koog nit ñi gis nga këram nu mu demee mënoon na def lu ne mais dafa yërëm doomu aadama suba gi bu la rombee ngay bale sax day def ni am joxal xale yi loolu rek la ñu xam ci moom wóor na yàlla. imaamu taalibe li mu xam ci moom jullit la te fonk waa këram eh, moom depuis bi ñu xamante ak léegi presque mën na ñaari fukki at ak juróom jàkk rek li ñuy xamante bu dëggee jàkk muy këram ak taalibe yi eh, loolu eh, ku jullit la ku jullit la bugg ay mbokkam bugg ay dëkk ay dëkkandoo am say bu jógee jàkk bi mu ngi ci mu ci këram taalibe mu ngi ci taalibe yi bu jógee ci taalibe yi eh, jàngal bu pare dem na jàkka bi bu jógee jàkka bi mu ngi ci mu ngi moom loolu la xamante moom te man saa bu ñu tase damay jóg xam nga sëriñ boo ñëwee si sëriñ da nga ko jóg ñaari loxo mais mais moom su ma jóg benn loxo ñaari loxo la may jóg mu ma njaay man naka naa ma ma kaay def ànd bëgg tam fii du nekk la may defal. moo ndëkk nga mu ne kaay gi nii ndëkk rakkam bi nekk mas mas grand yi tamit la la bi muy këjee ci moom ca rakk bi même pas une semaine ma ko ma laaj ci ana sëriñ bi mu ne kër gi waaw mu man ne ko maa ndox mu ngi ci jàmm mu ne waaw mu ngi ci jàmm te man li ma xam ci moom mënu mu wax ci ci kana ñu ñaanal yalla ak yonent bi fu mu jëm yalla na ko gudd ak salam sun xol dafa fees bi ma déggee affaire bi ma xol sun portable ñu ne ko eliman Elimane dafa yore ma ko noonu lu mën a nekk lan mo ni eliman lu tak eliman kenn te bu mu ñëw ñëwee dafa ñëw taggu mu ne ma ngi dem marché ma ngi dem marché bu bu génne ñu noonu ñu woo koy téléphone téléphone muy sonné waaye téléphone yëpp ñu sonné yaa ngi loolu nag tey si suba rek laa yëg jégal ma rek. am tiis rek. ak jaaxle ak naqar ndax ki jóge fii muy suñu nijaay bokk ak sama yaay ndey ak baay muy nijaay boo xam ne nag su de famille la xamul lu dul diine ak lislaam bëgg ñëpp lépp lu xew ci famille bi sama nijaay mooy jóg tey ñun ñàkk nañu ñàkk nañu xamuñu nag ku def lu jëf ju bon ji waaye yàlla na ko yàlla weer ci daraja yonent bi tiis daal ak naqar lañ xëyee daal ndax trois jours a ngi nii ñu ngi koy seet depuis lundi ba tey xanaa ñu xëy rek sànq rek wax ne gis nañ ko fi am na benn koor bu ñu gis fee ci bassin bi ñu dem xool fekk ne moom la waaw loolu lañ ci am. lan Imam Tall. daal lu ma mën a wax ci moom. te gis nga Grand Yoff ni mu mel. te Grand Yoff ñëpp a ñàkk. njaago yi sax ñu ngi jooy. parce que lépp lu mas a xew fii ci koñ bi sama nijaay moo ko yor moo yor léppi Grand Yoff tey du ñun kasa famille bi ñoo ñàkk Grand Yoff moo ñàkk ndax li fi jóge tey la ki fi jóge tey Grand Yoff ñëpp ñàkk nañ sant yàlla julli ci yonte wi sallallahu alayhi wa sallam di gërëm yàlla bu baax ci jëfam bi nga xamante ni moom moo ko jëf te moo am sañ-sañu jëf ko ak fii bi mu ko jëfee ak ci ni mu ko jëfee ni mu ko neexee ndax mooy buur te mooy borom te kenn du xëccoog moom ñu sant yàlla bu baax ci loolu waaye di am tiis gu metti ak naqar goo xamante ni tey am nañ ko te munul ñàkk ndax euh, ki jóge fii ci moo toll noonu ci noonu mu nekk euh, tey daanaka reportage yëpp benn la nit ku màgg nit ku sell nit ku bëgg mbokk wallahi al azim nit ku am yitte koo xamante ni jàng ci gàttal daal jàmbaaru lislaam la da xam ni kii diine rek a ko ñor ndax ku ñëw rek mbaax rek nga koy taggee te mbaax diine mooy baaxal nit diine mooy melal nit melukaan boo xamante ni ñëpp koy bëgg ñëpp koy naw ci ñëpp lay bokk loolu moo waral tey li ngeen fi fekk mu ñu am ci naqar bu baax a baax a baax tey ku fi ñëw gis ni ku ne jooy na kenn ku ne def nga loo xamante ni yow tàgg nañ la ni sax te defoo loolu man ba ma ko yëgee yàlla xam na ni sama loxo bi dama ko dóor ci bunt fii may wax ak yow dafa rëq te bi sama baay génne àdduna sax loolu dalu ma waaw loolu suñu nijaay moom moo toll noonu ñu koy ñaanal yal na yàlla yërëm ko yal na ko yàlla xara àjjana fi mu dem yal na ko gënal fi mu jógee di wax rek sant yàlla rek lu ci am ni ñu daal topp lépp daal du ñu wax lii la du ñu wax laala waaye delloo nañ lépp ci yàlla waaw di wax ne it gëm nañ yàlla te nangu nañ dogal gi di leen gërëm yéen it bu baax di leen ñaanal yàlla macha allah ok. Mm-hmm. waaw waaw jug rek def yëfu nit rek maanaam dem ci média yi fu ñu am yaakaar fu ne rek. Euh, ñu ñu ñu dem fa boobu ba léegi tooguñu famille bi ñett fan yii yëpp fu ñu dem nañ fa partout amul fu ñu duggul waaw loolu rek lañ mën a def wër rek waaw ak euh, dem ci média yi ñu ñu yaatal information bi ba xëy tey daal ak niñ ko jotee nii daal noonu daal lañ ci toll waaw ñu cee wax leneen. Hmm. ci jàmm. waaw comme ni ko góor gi waxee ci ginnaaw rek waaw ci jàmm ci salaam kooku amul problème ak benn mbindeefu yàlla yow kay yaa koy tooñ waaw nit kay moo koy tooñ mais tooñul kenn wallahi wal azim ñun xamuñu ku ko gën sëriñ bi waaw xëy na bu ñu waxee xamuñu ku ko gën man loolu yàgg naa ko wax sama nijaay xawma ku ko gën barki yonentu yàlla Muhammad ëmbal naa ko cofeel goo xamante ni ëmbaluma ko bindeefu yàlla waaw loolu moom moo ñu ko ji li fi xew nii tey loolu kese la mais famille bi ñu yar la ci diine yar leen ci gëm yàlla ñëpp ñëpp ci ci loolu lañ leen yar góor ak jigéen waaye lu yëngu rek lu ko yëngal la ko ëpp doole loolu mooy li xew nii tey amul benn problème xëy na ndogal yàlla rek dañ jàpp ndogal yàlla rek ba xam leneen li ci xew waaw nañ jàpp loolu rek ba gis leneen waaw. Mhm. waaw tuuti rek ci wàllu nit rek. waaw ci comportement bu changé tuuti waaw noonu la fi génnee waaw moo tax ma ne foog ñu gën a toogaat rek ba gën a xool daal. sàmm na loo xam ñun di suñu domaine. waaw dina egg ci loxo yoo xamante ni ñoom bu ñu defee seen recherche bu dee leneen it rax na ci lu tax ma ne ndogal yàlla wax dafa laaj dégg-dégg kenn munta rey nit ku laay waxee kenn munta rey nit ku dul yàlla yow sàkkoo nit ki indi ko fii ci àdduna kon munoo ko fee jëlee lu waay def mun nga sabab de waaye sabab boo gis dafay àndal day yee ndogal yàlla foofu laay waxee waaw wax bi dafay laaj dégg-dégg waaw waaye leneen lu ci nit mënta def loolu yëpp loolu loolu ci kanam la mais loolu du suñu domaine te loolu ki koy xàtte mooy yàlla waaw parce que moom rek moom mooy àtte waaw alayhi salaahu bi ahkamil hakimin yàlla rek ay àtte keneen du ate waaw loolu laay tontu ci la waaw instant bi mu ngi ci loxo yoon lëpp waaw bu ko defee après lu ci kiiwaat rek incha allah ñu gën koo kii waaw mu ngi seen loxo waaw kay allah maam suñu mag la ñoo bokk baay mooy suñu taw baay di suñu papa di suñu lu ne fi suñu papa jógee ba tey moo ñu uuf yore suñu lépp uuf njaboot gi yëpp bëggul kenn xiif bëggul kenn mar bëggul kenn nekk ci borom doon bàyyi ñëpp nag te yemale ko nag ci famille daanaka kàttu kaalidu yëpp nit yi am lañ am na yëg-yëg am na yërmande ci nit am na di xamul lu dul diine tey dañoo ñàq ndax ku jóge ci ñun ku soor la ci ñun ni ku ñuy jàppale la ku ñuy yërëm la ku ñuy yiir la ku ñu soutenir la suñu lépp la te bañ ko yëgee tey suñu àdduna jaxasoo la tey suñu àdduna jaxasoo la naqar la ñu yeewoo tey ñeenti fan ñu ngi souffrir waaye bisu tey bi gën a metti ci ñun ndax nii bu demee dafa metti bu metti torop ابن هلي ولي جلي مو يلي مو يلي دولي aduna koy futi ah gore jam ko heewi e dow golle bonde tiempo, ya nga xam ne moom imam Thierno Tidiane tal nekkoon euh, ki li euh, euh, imam bu grand mosquée bu Daaru salam 2 Grand Yoff niki lundi nak la di ay ñu niki 4 jours lañ koy wulalon ko wër tay di informé que di retrouver bassin bi nek de captage lolu lañ comme information ñëw waaye nag xamaguñu nag lan moo causé li nga xam ne rek moom mooy euh, décem waaye nag lu ci mënti am rek euh, dinañ leen xuusal rek euh, ngir jukkil leen li nga xam ne moom mooy information yi jàngeen jëf